vraiment président Macky Sall bëgg nañ mu wax ak parce que su waxee ak professeur, yi tey trouver un terrain d'entente entre eux léegi su ñun ñii ñun ñi nekk kii professeur am bëgg ñun régulièrement dara sans problème sans dara léegi ñun dañuy tamit euh, léegi parfois ñun dañoo wootoon marche pacifique amul amul dara dox nañ mais dafa ñëw ne kii ni ñun ñëpp ñu ne ñu woote paix paix la ñu woote ñu ñëpp élèves yi kenn sànniwul xeex kenn deful dara ñu ne reculer leen ñu reculer ma na gars yëpp taxaw leen ñëpp ñu taxaw ñun ñëpp ñu sànni lacrymogène dawuñ ba léegi ñu reculer xam nga gars yi mënuñu ñoo nooy saxaar suy ñëw parce que dafa xaw a mel ni ko dafa saf ah ñu reculer gars yi sandiwaat beneen woo renfort léegi gars yi obligé ne comme gars ñu ngi sandi gars yi commencé sandi ma leen non bu kenn di sandi xeer parce que marche pacifique la ñu wax tey boobu la ñu gars am na ñu xamante ne jot nañ leen a kii ni ay bal jot nañ leen a dóor tamit dóor nañ ay vraiment ay booy ba am na ko xamante ne sax jot nañ kaa gaañ fee ne sand lacrymogène ba mu kii si kiwi ñu jàppoon ñu bëri ñu bëri jàpp nañ leen si yoon dóor nañ leen dóor yu métti to bu ñu leen jàppee